bokk ñu seetaan ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci benn reportage boo xamante ni bii dañu bëgg a wone tukki bi nga xamante ni Serigne Mamour Mbacke bu Cheikh Mourtada Mbacke mu ngi koy amal ci réewum Italie te waay juróom bu Cheikh Mourtada Mbacke dooroon ko tukki bi aspect yi dafa bari ndax gis ngeen ministre bi nga xamante ni bii moo yore les Sénégalais de l'extérieur wax na ko ci biir tukki Serigne Mamour bi salle yi nga xamante ni ñu nga fay dem li mu soxla ci dajale ko ci ay sénégalais foofu la koy. amee loolu moo tax keroog bi muy tàggoo ak sëriñ bi ci Napoli sant na sëñ Mamor xamal ko ni ko jàppandil nga sama liggéey woyefal nga ko lool waaye yemul foofu ndax bokk yi nga xamante ni bii dañuy def commerce di jaay itam euh, tukkib sëriñ bi dëkk boo xamante ni sëriñ Mamor dem na fa xam ngeen ni bokki taalibe yi danañu fa daje ba loolu tax na euh, ñoom suñu bokki jaaykat yi fenn fu nekk buñ fa déggee sëriñ bi danañ fa ñëw ñu bëgg nag ànd ak yéen pour won leen aspect économique bi nga xamante ni bii tukkib sëriñ bi amal na ko kon damay ànd ak Mbacke mbooj ngir ñëw ci bokk yi nga xamante ni ñooy commerçant yi ñu leeral ñu loolu reportage. bokk yi kon ni ñu leen ko waxee ñoo ngi fii ak sëriñ Ablaye Diop sunu borom dogal moom mu ngi bàyyi ko ba Strasbourg en France waaye chaque année bu déggee ni sëñ Mamoor ci tournée bi dafay ñëw kon sëñ Ablaye ni ma ko waxee mu mel ni tukkib sëriñ bi njariñ yi am na solo lool ba bokki jaaykat yi. Euh, bu sëñ bi jógee dañuy ànd ak moom ndax gis nañu ni fu mu nekk mbooloo moo fay daje ñu bëggoon na nga ñëw ak ñun ci loolu. tukki bi wala boog ziare bi nekk na loo xam ne li leen ay njëriñ yu rekk la ndax gis nga comme ni ngeen ko gisee nii mbooloo mi bari na jaaykat yi gis ngeen ni ñu mel feneen fu ngeen mun ci dem itam noonu la noonu la demee ah ñu ngi ñaan nag di gërëm di gërëm ñëpp rek di gërëm sëriñ bi bu baax. di ñaan mu yokk ñu ñaan. mbaa yéen a ngi am xéewal daal mbir yaa ngi jar. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah ñu ngi sant bu baax alhamdulilah Serigne Abdoulaye Diop euh, jërëjëf. kon euh, ñoo ngi fii ak euh, benn soxna boo xamante ne bi sëñ Mame Thierno Ndiaye Baye Fall mooy borom këram la señora Manuela siamo qui con Serigne Mamor il marabu Serigne Mamor te ho visto comprare, non so, il profumo o che tipo di roba, che, cosa ci fa qui? Comprare la roba o no? Dama ko doon laaj lan lay def nii ndax marchandise Eh, sono venuta un po' per la festa, per stare insieme a mio marito anche per... Mu ne dafa ñëw ci ziare bi eh, nekk e anche per comprare i prodotti africani perché da quando ho provato prodotti africani quelli italiani non li uso più. Muni agit ñew jënd produit baye ko Afrique ndax neena bi mu commencé utiliser produit baiko Afrique dootul laal mukk produit boo xamante ni dafa bàyyi ko Italie quel type de produit ay ay comprato qui ma laaj ko ban produit la jënd fii. E compro essenze, profumi, caramelle, profumi per la casa. Muni jënd na fi cuuraay eh, parfum ak ak ak tàngal e poi e poi tutto quello che creme, stoffe, fino a che ho soldi compro. Eh, tu sei tuuseeg lépp nee na daal day jënd ba ba xaalisam jeex rek grazie signora jërëjëf. aw kon sëñ bi dañu bëgg rek nga présenté wu. wax ñu sa tur ak fi nga dëkk ah. euh, laaj bi rek mooy gis nañu ni sëñ Mame Mor fu mu jëm bokki taalibe yëpp dañuy ñëw ngir am ci xéwalug sëriñ bi euh, ñuy laaj ndax njaay mi dox na wala déet boo boo boo présenté ba pare mu mel dafa am ku bëgg MCC fi mu mel na ni xawuma tal ndax xool produit bi nga xamante ni moom la sa waay bisimilah waaw jërëjëf salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp man maa ngi tudd Malick Thielo euh, dëkk Pisa sama place mi ngi nekk Pisa ñu ngi jaay ay bagages yu yiitoo mbokki Sénégal yi di jaay bagages yu jaay en ak objet d'art ngan gi nag moom allah kulli aan fu ñu toll ñoom ñi ngi dem ci ngan yi dañuy sant yàlla bu baax ndax fu ñu dem daal dañuy yóbbaale suñuy bagage dafa am ay mbokki taalib yoo xam ne dañ koy yittewoo te dañ gis bi du leen yomb daal. Hmm. mais gis mbooloo nii Four Diaye peut-être xëy na ci fête koy mën a amee bu bu dul ziare sëñ bi. waaw daanaka ci fête rek lañ ko mën a gisee waaw. kon daal yëf yi xéwal gaa ngi dugg. waaw ñu ñu ngi sant bu baax. Eh, kon ni leen ko waxee rek ñu ngi fi ak Serigne Assane Fall gis nañu ni Serigne bi euh, fu mu jëm rek bokki taalibe yi danañu fa daje ni ñu leen ko waxee aspect économique bi nga xamante ni am na ci tukki bi sëñ Assane gis nañu ni sëriñ bi fu mu jëm mbooloo dana fa daje mu mel ni kon euh, xéewal gi euh, commerçant yi suñu xéewalu sëñ Tuubaa gi dana baawaan ba ñëw ci ci ñoom ci lañ bokk rek nga sànniñ ci ay kàddu wax ñu ndax xéewal gaa ngi dugg wala déet. waaw sëñ bay ñu ngi sant yàlla baax di gërëm sëñ Touba xéewal gi ñi ngi ci sant sunu borom euh, lii day loo xam ne day bagage yi murit li ñuy wax bagage yi murit nu ànd ak sëriñ bi taalibe yi di fi daje waxtu wu nekk di tëwoo xasida yi di tëwoo itam kaset yu leen delluwaat ci seen borom leen fàttali seen diine ak seen taalibe ak seen ngor te sëriñ Sam Mbaye waxoon na ci làmmiñam maa ngi wax léegi sëñ bi wax ne sama wax ji asan boo ma ko tasee ci jaami yàlla yi naa la gërëm loolu mooy tax fu sëñ bi jëm depuis sëñ Mourtala ba nëgëni nag fu masaan ñëw ànd ak moom ba tournée bi jeex di gis taalibe yi di leen jox li nga xam ne moom la ñuy tëwoo te mënuñu ko fekk ne ci la ñuy fàttali ko suñu ko defee nu bokk di ko jamono kon noo ngi sant dañuy am fii cassette yoo xamante ni dañ koy yóbbu Sénégal ngir rajo yeeg yu mel noonu. Hmm. mu mel ni yen yi ngeen di am fi sax waa Sénégal duñ ko am lool nu mu deme noonu gëstu bee xóot wala nu mu demee noonu. waaw loolu xam nga ginnaaw dañoo nekk ci réew mi nekk fi ak bokki taalibe yi ñiy gëj Sénégal te seen loxo di jot fépp bu ñu demee moo tax ñun ñi nga xam ne yàlla dafa dogal mu féete ci wàllu googu bu ñu demee Sénégal lépp lu nu man daana ko def ci xóotal ak làmbutu ak janal sunu loxo ba génnee loo xam ne daan tu mu rànk ci Sénégal ba fi may waxee yow nii bari na kaset yoo xam ne ña ngi koy déglu ca Sénégal tey fii lay jóge jëm Sénégal loolu xam naa ci lu leer ndax dama ko fay yóbbu te am it ñenn ñu ko jox amit di ko waaw di la rajo jox ci tam waa Touba waa sëñ Moustapha mi ci moom laa ko ci loxoom laa ko doon jaarale muy jëm muy muy jëm foofu Sénégal ci ñoom kon daal sëriñ bi lépp moom buñ ko toppee rek dañ cey fekk loo xam ne Eh, fa nga xam ne fa lañ jàpp ne fa la juddoo dañuy dem ba nga egg foo xam ne eh, fa ñu nekk ci bitim réew nga xam ne dafaa wàlli siyaan foofa day mel ne dafay am yu fa ballewaat delluwaat xam ne fa la yëfi sëñ bi juddoo woon loolu nag li ko dara defu ko lu dul eh, ubbikuk sëñ Touba ak bëgg a a ñëpp jàmm nga xam ne fépp fu mu nekk rek suñu borom ubbil ko fa buntu boo xam ne na fa njariñ loo xam ne boo ko yóbbu Sénégal kéemtaan lay doon ci waa Sénégal te itam na nga koy jote fii yow day nekk jotin woo xam ne ndax bi ñu ñëw fii ci réew mi juróom-ñaari kaset sëñ Sambay leen fi indi dem nañ ba nekk ci 550 volume sëñ Sambay te lépp ital la fekk kon loolu euh, mbir la moo xam ne def yow sëriñ Touba la ñoo ngi ci sant sëñ Touba te di ci jàppale itam bokki taalibe bi bu baax a baax jërëjëf sëñ Assane ñu ngi lay sant di la gërëm maa ngi fi ak sëriñ Mbaye Gueye ndongool sëriñ Mbacke Mohamed wala ndokkeel sëriñ Moustapha euh, di jëwriñ euh, sëñ Mbaye dafa am reportage boo xamante ne bi dañu gis ni sëriñ bi fu mu jëm bokki taalibe yi ñu fo daje gis nañu ni politiciens yi lu mel ni ministre bi yore les Sénégalais de l'extérieur dafay ànd ak sëriñ bi ndax ci mbooloom sëriñ bi ci lay mën a wax euh, message am bi muy jàllale waaye jaaykat itam ziare sëriñ bi ci la ñuy ñëw ngir sàkku euh, xéewalug sëriñ Touba gi ñu bëggoon na nga yëkkatil ñu ay kaddu ci ndax xéewal yaa ngi dugg euh, wala déet ndax gis nañu ni saa bu fi sang ñëwee rek mbooloo moomu la fay daje ci mbooloo feet rek la ko commerçant yi mën a amee sëñ Mbaye. salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mbaye Guèye Sylla noo ngi lay sant lool ci loolu ngay wax liggéey bi ngay liggéey rafetlu nañ ko lool ngir dañ gis ne sa coono yëpp ak sa liggéey yëpp yaa ngi koy def ci li feeñal liggéeyu Serigne Touba rek ak wone njàmbaaroog murit yi nga xam ne ñoo nekkal Serigne Touba ci àll bi. gis na ne nag seen njàmbaar googu ngay feeñal ak liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy rafetal waxtu ne loolu tax na ñu ngi ci sant di la ci gërëm bu baax a baax di la xamal ne nag lii moom liggéey la nun dañuy liggéey rek ngir sëriñ bi jamono yi nga xam sëriñ baa ngi daje nag wala taalibe yi di daje ngir sëriñ bi ci dëkk yi ak gox-goxaan yi fenn fu ci ne ña fa jege te doon ay taalibe te yoroon doon yor yëngu ci mbirum marchandise dañ fay ñëw ngir dimbali nit ña dimbali ku ca itam la ñuy dimbalee nit ña mooy marchandise yi nga xam ne nit ñi dañoo ne seen kër di ko soxla te jàpp ni wut ñu gis ko ci bidigu tubaab yi jàpp ni wut ñu gis ko ci biir seen seen biir kër la ñuy wuti am ko andi ko di ko leen ko ci jamonoy ndaje yi ñu di fekk moo waral buñ gisee bu dañuy ñuy sawar a ñëw ngir di jënd marchandise yooyu bu doon nga xam ne moo na ci marché beeg bidigu tubaab bi kenn ku ne jëndoon nga démb dong waaye li ñu leen di jaay day fekk loo xam ne li bokkut li tubaab yi jaay fii dañ koy woon a gis ba bëgg ko jënte mënuñu koo gis ci bidigu tubaab yi gis giñ koy gis fi ci nun moo waral fu ne daañu fa fekk daañu ko jënd ngir sëriñ bi waaye lañ cee am itam nun ca lañ def li nga xam ne mooy suñu warteef bi ñu war ci daayira yi ñu war ci siyaar sëñ bi ñu war ci li ñu war ci sun sun déew suñu njaboot waaye ci la ñuy lijjante itam li nga xam ne moo leen yóbbu suñu njaboot lëg ak jàmm incha allah di ñaan nag saa defal nu ci barke képp koy gis seetaan nga ñaanoon saa defal nu ci barke ba liñ ci am nu mën koo jariñoo te yàq bañ caa dugg jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Mbaye kon leeral nga ko bokki taalibe yi marchandise bi ñuy mën a gis ci ziare sëriñ bi bu ñu toogee seen kër du ñu ko am kon bu ñu ñëwee ci ziar bi ci la ñuy profité waaye bokki commerçant yi itam bu ñëwee ci ziare bi ci la ñuy euh, profité ni ko sëñ bi waxee kon baax na ci jaaykat bi waaye baax na itam ci ki nga xamante ne bii mooy jënd waaye sëriñ Touba moo mel noonu ndax la nasaraan ba bëggoon bu amoon tey du demee nii. c'est de 35. 35. Non, non, 40 Ma 35 le due, due per. Mon frère. Io vendo, eh, guarda, tutti vendo 20 euro. Mi dispiace. No, no, 35 Non si tratta del prezzo. Quello, il prezzo è quello. Io vendo prezzo buono a tutti. No, quello è l'unico che c'è. Allora, fratello. Dimmi, camarada. Sei con la televisione senegalese? Sì. Ho visto che ogni volta che ci vengo qui il, il, il marabù eh, sei qui per vendere la roba. Allora, mi puoi dire come hai visto eh, questo eh, avvenimento che ogni anno eh, il Marabu, perché ti ho visto a, a, a, Brescia, dove vai il Marabu ci vai anche te. Mi puoi dire come vanno le cose? Dopo ko laaj ni ko, gis naa ni fu sëriñ bi nekk rek yaa nga fa ñëw di jaay, ma di ko laaj nag xéewal gi naka la ko Alhamdulillah, jërëjëf ah, Allah. nee na mi ngi Allah. yàlla. sant io vado col marabou dappertutto dove c'è. Mu ni moom fu sëñ bi jëm rek dafay jëm rek la fay jëlee ndax fu fa dem jaay. Io alhamdulillah lavoro con i senegalesi, sono gente simpatici, gente... Ñun ñu am jàmm lañ. Poi ho visto che loro piacciono la roba marocchina, io porto la roba marocchina. Mu ne gis na ni sénégalais yi bëgg nañu marchandise u Maroc moo tax mu di leen marchandise u Maroc. E poi vendo un prezzo molto buono per loro, vedi che la gente tutti che comprano... Nee na itam prix bu baax la leen koy jaay moo tax ñoom itam ñu ñëw ngir di jënd loolu. E poi noi ringraziamo Marabbo che viene qua perché rassembla tutta la comunità senegalese, anche alcuni marocchini, alcuni italiani vengono qua per assistere a questo, questo avvenimento che tanti genti piacciono vedere tutti i senegalesi uniti, questo è un, bel, un grande piacere per tutti. sénégalais yeeg marocains ñu ñuy def affaire di jaay nee kon mi ngi ciy sant euh, sëriñ bi bu baax mio fratello euh, grazie tourné sëriñ bi xéewal gi nga xamante ne ko indi ci taalibe yi ndax gis nañu ni jaaykat yi danañu am xéewal ndax danañu jaay waaye bokki taalibe yi nga xamante ne bu ñu toogoon seen kër du ñu gis marchandise bi tam xéewal la ci ñoom ndax danañ fi gis marchandise ñu bëgg jënd ko maa ngi gis yaa ngi yore fii ay basin yuy bàyyi ko Autriche mu bëgg rek nga addu ci loolu te wax nu ndax xéewal yaa ngi dugg wala bokki taalibe yi noo ngi saare di sant ci bisu bi nga xam si moo ñu ko fi ñaar fukki at bi mu fiy bëgg a jógee mu tudd ko bisub lislaam ñun nag fii ci Livorno Touba Livorno loolu lañ koy dundee tey nag ba Toscana li wër Firenze ak promesse bi région Firenze ñëpp ñoo fi bokk teew di màggal bisub Seex Moodu Murtala bi mu rëy lool mbooloo mi bari na ñun fi dëkk di yëngu ci ay affaire commerce ñuy génne bagage yi sénégalais yaa ngi ci dugg def seeni commerce ñoo ngi sant yàlla baax nag ci liggéey bi ñu ciy liggéey ñun tam di ci def ay commerce suñu borom muy def sutura ah noo ci ñaan ay xéwal ñun tam eh, liñ ci jël daal noo ngi sant yàlla daal di ci ñaan Seex Murtala. kon mu mel ni mu mel ni li muy dugal ci ay milliards ci affaire commerce. ziare sëriñ bi tam noonu lay dugalee. Euh, ñoo yem ñoo mi day ci màggal gi. ñoom ñoo ñëwaat ci bisub Seex Mamadou Moutalaak. ndax kon mu mel ni Serigne Touba. woote ba mu woote woon ca Mbacke Bari. wala ca Mbacke Kayoor. tubaab bi ni ko. du fi amee danaa fay sa taal bi. waaw taalub Serigne Touba bi. tàkk na tey ba ñëw ci biir. tubaab yi ba xéewal gi fii koy xew loo noonu la demee noonu la demee. Mm. wér na si sikkuwul. Mm. sikkuwul. jërëjëf noonu la ko gëmee noonu la ko dundee. jërëjëf sëñ Euh, kon ñoo ko gisandoo noonu rek euh, xéewalu Serigne Touba yi jéggi na frontière léegi ba bokk yi fépp foo xamante ni lu bokk ci Serigne Touba euh, teew na fa rek xéwal daal di fay feeñ kon xéwal la ci bokk yi nga xamante ni dañuy ñëw dañuy ñëw ci ziare bi ngir jënd marchandise yooyu bu ñu toogoon seen kër du ñu ko gis waaye xéwal la itam ci commerçant yi nga xamante ni bii ñoom itam dañuy jaay ndax gis naa foofu muy ay diwukaay ak café Touba. ak yi ñuy soxla woo yëpp occasion la boo xamante ni ci ziyaara bi lañ koy mën a amee kon xéewalu Serigne Touba gi jéggi nay frontière ba egsi na fi nga xamante ni bii euh, tubaab yi sax danañu dem ci kanam ndax gis naa ni opérateur téléphonique yi fi nekk muy lu mel ni Tim ak euh, Vodafone dañuy profité ci euh, tukki Serigne bi ñoom itam ngir mën a jaay seen i produits. mbokki taalibe yi ñoo ngi fii ak benn opérateur. bu ñuy wax Wadofone di opérateur international waaye ñoom gis nañu ni xéewalu sëriñ Touba yi fu sëñ Mamor jëm ñu ko topp muy ñoom muy waa tim ndax gis ngeen Sénégalais yi ni ñu leen ràññee ngir jënd seen carte yi bu xee bu ziara bi jàllee dootuñu ko mën a am ami ko Allora, ho visto che quando siamo iniziato il giro, dove va il Marabù ci sono le gente di team di Vodafone. Mi, di, mi puoi dire come hai visto, come vanno le cose qui? Allora, prima di tutto voglio dire buonasera a tutti e vi ringrazio per l'ospitalità. sei di Dalla è un momento un po' complicato, però vi volevo dire grazie, mi sembra un buon evento, abbastanza tranquillo e spero di esserci anche il prossimo anno. No, bi ñu ñëwee dafa dafa doon bañ ci tàmbali gi mais nee xamul woon lu tax waaye nee ngi lay sant ñëpp tey ñaan ñu fekkee ko déwén come vanno le cose i soldi c'è? Eh, eh? eh, i soldi io, io ve li fo spendere pochi eh, <laughs> però bene bene le ho. mu ni kon mbir yaa dox kon li ñu ci jublu rek mooy wane ni publicité bi wóor mooy Serigne Touba ndax Serigne Touba fu mu nekk lu fa waay jaay loola dana jar jar a ngeen euh, kon ñoo fi ak opérateur téléphonique bu ñuy wax tim ni ma leen ko waxee woon rek xéwali Serigne Touba yi ñoom Touba bi sax dañuy ñëw ngir euh, xéwlu ci alors t'ho visto a Cino sbaglio a euh, Brescia a Pontevico dove ci va il marabu ho visto che siete anche lì per i team mi puoi dire come hai visto questo avvenimento e come vanno le cose Da ni ko fu sëriñ bi dem yéen a ngi fay ñëw ngir sàkku xéewal ma bëgg nga wax ma nan nga gisee daje bi ak ndax it mbir mi mi ngi dox wala Eh, noi seguiamo eh, in Toscana tutte le etnie. Non siamo kon figli ci Toscana ñom ñoy servir client yep. Però da un anno e mezzo a oggi abbiamo deciso di lasciar perdere tutti e seguire solo i senegalesi. Munikon eh lu mat at gis nañu ni xéwal yi nga xamante ni ñoom mu donte ni ci Sénégal euh, opérateur téléphonique yi ñi ngi koy am ci sénégalais yi amuñu ko feneen moo tax nee nañu lépp léegi ngir di jaayanteeg sénégalais yi. perché è un popolo di persone oneste e brave. ndax dañuy ay nit ñoo xamante ni honnête la ay jàmbaar la ñu e qualsiasi eh, possibilità che noi abbiamo attraverso la team di poter. Eh, arrivare a darle dei vantaggi, noi ci impegniamo a farle avere il massimo. mu ni kon kër gi nga xamante ne bii mooy tim lépp loo xamante ne bii mën nañ ko complimenti per il vostro popolo, niente droga, niente alcol, niente fumo. mu ni kon mu popolo eh, sant peuple Sénégal bi nga xamante ni nee na def du ñu mandi itam li sëriñ bi bëgg di sëriñ Touba e eh, ñu ngi ci ndax nee na loolu peuple sénégalais bi duñ ko def. vi ringrazio per la vostra accoglienza. mu mu ngi sant dalal gi nga xamante dalal nañ ko ko yaatalal ko ko itam. grazie di nuovo a tutti. Ecco, eh, ah, ho sentito che avete una partenariato fra voi e Toba Toscana. Noi abbiamo un partenariato entre noi e Toba Toscana. Eh, noi abbiamo chiesto a Tim eh, di sponsorizzare la nostra presenza qui e abbiamo chiesto di elargire una somma di denaro ogni qualvolta voi ci ospitate. mu ni dem nañu nag ba tim kon nañu sponsorisé xew-xew bi nga xamante Touba euh, Toscana ñu koy organiser te saa bu ñëwee dinañ ko fa jaay loolu duñ ko jaay feneen ba juboo nañu ak ñoom ci loolu ba def benn partenariat boo xamante dañuy sponsorisé nganuk Touba Toscana gi leen sëñ Mame di gane. E abbiamo fatto in maniera che tutto ciò che riusciamo a ottenere di denaro vada alla vostra associazione Tuba Toscana. kon mu dana am lu ci ruuse loo xamante ni mbirum euh, xaalis la moo xamante ni ci euh, njabootu Serigne Touba gi di Tuba Toscana ci lay dellu. per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno. pour jàppale ñi nga xamante ni bii mooy ñi ko e che il denaro eh, lo possiate usare voi per aiutare appunto coloro che sono più bisognosi. mu itam euh, partenariat boobu li ciy ruuse ñoom Touba Toscane danañ ko mën a utiliser ngir dimbale jàppale bokk yi nga xamante ne bii loru nañ ci wala soxla nañ ko. Bene, io vi faccio di nuovo i miei complimenti. mu kon mi ngi dellu di leen santaat. Siete un popolo meraviglioso. nee na daal peuple sénégalais bi peuple bu do peuple bu bu sell la peuple bu baax la ay dafa koy jafe loolu moo am ay mots pour qualifier wax sénégalais yi ni ñu mel. solo che il riso è troppo piccante. mu ni lenn rek daal la gis lu ko jaaxal ndax. ceebu jënu sénégalais yi nee daal dafay wex lool kaani neex na lool waaye nee day wax kaani. mu ni kon mu ngi sant bu baax a baax. mbokk yi kon euh, ni ma leen ko waxee woon rek fi ñu nekk di sëriñ Mbaye Mbaye nga xamante ni li ma yore nii mooy nataalu ku tedd ki Xaadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba di nataal boo xamante ni bii l' administrateur de Diourbel moo ko ko dekoon euh, ci 1913. sëñ mbay Mbaye nag fépp foo xamante ni sëriñ bi mu nga fay dem dafay yor nataali sëriñ bi ak njabootam gi ngir di ko euh, wecceeku kon ni nga xamante ni màggalu Touba li muy dugal ci économie sénégalaise di ay milliards yu dul jeex noonu la ziare sëriñ bi tam di dugale xaalis ci suñu bokki jaaykat yi xam ngeen ni photo bi ku nekk sa kër doo ko am waaye boo ñëwee ci ziare sëriñ bi di nga gis ki koy jaay wecceeku ko mu doon xeewal ci yow waaye ki koy jaay mu doon xeewal ci moom kon tukki bi sëriñ bi di tukki moy xéewalug sëriñ Touba gi nga xamanteni ba mu taalee taalam ba ci 1883 touba bi ni du fi amé 1895 mu jël ko di daf koy sanki sëriñ bi ñibbi 1902 ñu yóbbu ko ganar 1903 1907 ñu yóbbu ko Thiène Jolof le 14 janvier 1912 ñu yóbbu ko bukhatul Mubaraka mu def fukki at ak juróom ci le 19 juillet 1927 mu ñibbi nag ci ngëneelul boromam ngir noppalu ji taabam bu tedd ba Cheikh Moustapha al Karim indi ko Touba kon ku tedd kii yal na ko sëriñ yal na ko sunu borom fayal moom sëriñ Touba. mbokk yi kon ba léegi rek ñoo ngi wéyal reportage bi ma leen waxoon ni liñ ci jublu mooy wane ni tukki bi sëriñ Mamor di tukki xéewal gi dafay dem ba ci euh, commerçant yi fii ñu teew tey banque bi walla boutique bi wala lal gi waa Touba Toscana gi nga xamante ni tey ñoo dalal sëriñ bi xasida ñoo koy wecceeku muy dugaat ci liggéey bi euh, photo yi nga xamante ni itam dañu ko defar ngir liggéey boo xamante ni sang bi euh, di Cheikh Salif Mbacké wala El Hadj Mouhamed Lamine Bara Mbacké moo leen ko santoon muy hôpitalu xale bu ñu war a def euh, Touba li ñu koy jaayee ca loolee lay dugg fii ci Livorno nag Touba Toscana sunu borom mayoon leen tawfeex joo xamante ni bi centenaire u gànnaar ndax ku Khadim Rasoul ci Amadou Bamba samedi le 13 juin 1903 la ñu ko génnee Daarul Manaan pour yóbbu ko Euh, euh le 13 juin 2003 fii ci Livorno fii la Cheikh Mourtada Mbacké defee centenaire u gànnaar bi ca déwén sa la ñëw tàggoo ak bokki talibé yi ngir xamal leen ni day moom ab liggéey mat na Serigne Mamor moo koy euh, mottali euh, fii di euh, Livorno sëriñ bi daf ko bëggoon ba saa bu ñëwee lu mu xat-xat daana leen cëral kon jëwriñ dama lay bàyyi rek ni nga ma ko waxee dégg nga ko xéewali Serigne Touba yi fépp fu sëñ bi dem dana fa feeñ ñu bëggoon rek nga yëkkati ay kaddu. waaw ni nga ko waxe rek sëñ Mourtala ni mu doon wax Touba Toscana da doon wax ne dëkk ba nga xam ne fa laay noppaloo ñoom ña nga xam ne dañoo ànd nekk ben noonu la ñu sëñ Mourtala tudde woon liggéey bii nag bu ngeen ko gisee mooy moom la ñu méngale comme liggéey ya fa jiitu woon. ñu demee ni pédiatrie bi ak lamp yi ñu doon incha allah it Touba Toscana jénoo jël seen bopp seen bot ak seen xel seen xalaat lépp ñu def ko comme Makka ak Madina na mu mel ñu fas yéene Touba Toscana noonu la ñu bëgg agale Touba sëñ Mbay daal liggéey baa ngi nii nekkul ni nag bésu bii rek la waaye nii lañu ko jàppoo waxtu wu jot même bu xew-xew amul dinañ daje ci benn dëkk Toscana gépp daje fa ñuy weer liggéeyu Sëriñ Touba kon daal tos Touba Toscana mu ngi noonu sëñ Bay jërëjëf kii kon ñoo ngi fii ak euh, bëgg fallu di mbokk taalibe moo xamante ni bii Espagne lay yëngoo waaye saa bu sëñ bi ñëwee dafay taale otoom Espagne ñëw euh, ci tukkib sëriñ bi ndax diñ leen ko waxee rek mbokk yi jënd danañ fi gis marchandise yooyu bu ñu nekkee seen kër duñu ko gis ci ziare bi ba ziare bi dellusiwaat lañ koy am waaye bokki commerçant yi itam danañ fi gis ci mbooloo lool bu dul feet euh, duñu ko gis kon bëgg fallu yaa ngi bàyyi ko Espagne ak sa oto te bi nga jógee Sénégal yàggul ba fii ñu doon la laaj rek nan nga gisee euh, euh, dajeb euh, mbokki taalibe yi nga xamante ni bii bu sëñ bi ñëwee dañuy ñëw ngir ziyaare si sëriñ bi waaye gis fi tam li nga xamante ni bii mooy seen marchandise yoo xamante ni bu ñu toogoon seen i kër duñu ko mën a am bëgg fàllu salaamaaleykum sëñ Bay waaw li nga wax dëgg la ñoo ngi siyaare bu baax fii nag wax di yàlla Euh, taalibe yi wax di yàlla jóge fu nekk fii ci ñëw fii ci Toscana tey ah ndax maam ndaje moom fu ñuul daje taalibe yi wax di yàlla xiiwal la ci ñëpp ndax ah, dimbal la ci ñun ñoom itam dimbal la ci ñoom njaay mi dimbal la ci ñun dimbal la ñoon ndax loo xam ne nii am na ñoo xam ne tey jii buñ ko gisee buñ ko gisee rek ndaje yi lañ koy mën a gisee kon ne wax di yàlla ah bu ñëwee fii maanaam ñëw ci siyaar bi ñun ñi di nga fi gis xam ne fi ngeen fasante kóllëre foo xam ne fi ngeen di xamante jamono bu ne déwén ak ren ba déwén ngeen waat fii di saafonte lu am solo la ndax maam bi Sëñ Tuubaa bi rek moo ko waral ndax am na ñoo xam ne daje mbooloo mu toll nii jafe na lool ci lu demee nii maanaam. pour lu lu mel ni rek nga koy mën a gisee. Mm-hmm. kon am na solo bu baax ndax ñu jóge fu nekk mbokki taalo bi daje fi ci bis bi mu siyaar sëñ Mor sëñ Mamor wax du yàlla ku nekk maanaam. wax dëgg yàlla at yii lu ma juróomi at maa ngi fi ñëw. di assister maanaam euh, ci ci siyaare yi. di dem fu nekk wax dëgg yàlla kon nag maanaam loolu moo ñu fi andi woon ak siyaar suñ bi ak maanaam ñoo xam ni ren ba déwén ñoo ay mbokki taal bi ñuy daañante ñoom. lu am solo la. wax dëgg yàlla yéen itam seen liggéey wax dëgg yàlla bu ngeen liggéey itam am na solo lool. jërëjëf jërëjëf kon euh, bëgg fàllu kon mbokk yi mu mel ni kon euh, reportage bi fii la ñu koy tëjee lañu ñu leen doon woon rek mooy Euh, sëriñ xéewalu sëriñ Touba gi tasaaro gi nga xamante ni gis ngeen tubaab yi ñu ngi ci xéewal gi waaye bokki taalibe itam ñu ngi ciy xéewlu muy jaaykat yi ak jëndkat yi ndax jaaykat yi ñu ngi jaay waaye bokki taalibe itam ci ziare bi la ñu mën a gis marchandise bu ñu toogoon seen kër du ñu ko gis kon ñi sant suñu man Mbacke mboj